fay naa leen. waa ah, sa présence tey événement Aïda Samb. mais loolu weñ ñiy naaw sax boo leen ko laajoon ñu tontu la musique moo ñu dajale fii tey surtout man mi nga xam ni ci musique laay yëngatu et Aïda euh, woote nag lu mel nii tey mu tombeek nag album am génn ak Prince Art mu ne dafay sargal jigéen tey ñu ne ko fan la sa bët tegu mu daldi ne King Fat ma ne ko ci ban saal mu ne déedéet ca chapiteau bu mag ba ñuy woo nit ñi ma ne ko loolu war naa mën a ne et loolu nag moo ñu dajale fii mu nekk euh, nit ku baax nit ku dal nit ku tarbiyu nit ku mbappat ci ay way Aïda aawu na kenn xamul ñaata at laata muy def carrière solo aw na ki ne laam yàgg ak moom lool lool lool lool jóge fa ñëw aawu Youssou nekk ñun nii nekk lu ndaw et donc nag bu wootee lu mel nii àdduna yëpp dañ ko war a wuy si. présence Aïda la scène musicale. ah mais c'est une grande dame c'est une grande dame dafa am présence ci kaw seen madame Diadio. Euh... jabaru suma xarit boobu nga xam ni mooy Abbas Diadio xam naa ci kanam tuuti di ngeen ko gis parce que lii yëpp toog waa Gàmbi la boo jógee ci man kee toog di ngeen ko laaj parce que moom itamit moo takk si woon ab ab euh, euh, Aïda Sam tu vois et c'est une grande dame et bu yégee di ngeen di ngeen gis ni dafay confirmer ah. voilà Aïda Sam mu ngi génne benn album. album bi ñu ngi ko album bi ñu ko tuddee nangu yow yaa ngi si def deux deux kii nga si def ah, di filtre am boo xam ne eh, mu yëngal kër yi ne ah, may Dalinkoor. waaw Dalinkoor tu sais Dalinkoor ay ñëpp képp ku dugg ci néegu sëy ak ku ki sëyagul ay na la way wi moom xam nga Dalinkoor mooy ki sëy ba ñu takkal ko ndoom bu tànk maanaam ba ñu jox ko turu Dalinkoor. sëykat ba waaw ki nga xam dafa dem ca ngoro la noonu la mel ban kay labat noonu la wane ba mu sëy sëy tamit loolu la wane ba ñu mujj jox ko nag medaay medaay bi moom mooy dalinkoor tur ba. ngi naan euh, mu ngi tas kër yi. tasul bi benn kër yow lu tax nga ngay ngay jël sa son wala sa magnétophone di. dégtal way wi keneen defal kooku dalinkoor moom tamit mu def la dalinkoor waaw waaw. en ah, mu ngi defaat benn featuring boo xam ne yaa ngi ñaar yaa ngi def benn boo xam ne Youssou Ndour la Youssou Ndour la si waay. ah ben parce que dafa rendre hommage mon frère et jumeau un grand monsieur de la musique africaine mondial sax laay wax muy le président Youssou Ndour. la ci rendre hommage et bu ñuy rendre yu Ndour hommage Mbaye Dieye fay na ca cabax lal la li ñi wax jaadu na lépp lu ko Aida wax ak lu ma ko wax ci way wi rek am na leneen lu des ci lu baax ak lu doonu jàmbaar ak liggéey ak pat ci moom mu muy Youssou. voilà soxna sa diggante Youssou Ndour fekk na ñu sa juddooguñu ba léegi yéen ñaari ngi ànd loo xam ne yombul yomb si jamono ji ñi fi ànd deux ans un an ñeneen diggante bi yàqu na mais yàgg suñu depuis 1974 waaw waaw 1973 la ñu commencé musique waaw. 2023 euh, yàgg mais je touche du bois yal na yàlla xeeb dollu euh, mbay jee fay Youssou Ndour jumeau bi ñuy wax dëgg la nag yaa ngi dégg et nii la ñu mës a mel maak moom et ñaan naa yàlla yit ñu continuer nii te ni ma ko ñaanee yàlla moom i tamit noonu la koy ñaanee yàlla donc loolu yëpp li koy indi xam nga moom mooy lan nangu nangu lu yàlla dogal suma xarit la suma frère la ñu bokk métier quand il est sur la scène day am lu muy yëg ci man moom i tamit euh, man bu ma nekkee ci kaw scène bi dafa am lu may yëg ci moom donc euh, li naan ay xarit daal bu ñu àndee na ku ne yéen a morom ma te nangu su ko defee rek ànd bi dafay yàgg parce booy ànd ak sa xarit di xool lu muy am ak lu muy ñàkk boo moytul ànd ba du yàgg yaa ngi dégg mais li ma la bëgg a waxal moom mooy c'est un grand monsieur un patriote un sénégalais tu vois réew mu ne boo sañoon am yuusu Ndour donc foofu laay tàggoo ñu ne ci kanam tuuti ay da ñëw daal di bégal doomu aadama yi ñu ànd ak moom gunge. ñu lay jaajëfal. toog nag. borom costume bee ngay gis waaw kay kii nag moo ñaan si woon Aida waaw wax leen nag moom. voilà <laughs> ok. maaleykum salaam maa ngi leen di fay. ah. <laughs> Euh, Diaby ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, la ma war a se présenter fii tey euh, en tant que la femme de notre notre père Médiaye Faye. ah waa euh, sama présence tey <laughs> ñëpp xam nañ ko diggante mbay Dieye fay ak Abbas Diadio ñëpp xam nañ ko sama diggante ak Aïda ndax Aïda man maay premier njëkkeem waa mu xam ko lool di sama doom di sama jabar ju baax looloo waral sama présence tey Euh, yow kon da ngaa nekk da nekk jigéenu xaritu euh, Aïda Samb. waaw Aïda euh, Abbas xaritu Mbaye Dieye la ba muy takk Aïda daal di jël premier njëkke bi may ma ko loolu moo waral sama présence ndax ayda ku koy jàppale rek maa ci war a jiitu. noo ah, macha allah ku ne gis na fan yi ñu ne kenn déglul kenn ko dul Aïda. fi ne nii ay daa tukkal jamono de. waaw daalin moom gis ngeen ko fi mu ne nii tiktok bi statut yi snap bi yépp ay dara mu def ko ku Mbaye Dieye tubaab fakalla macha allah jigéen bu ne. war a jàng ci woy boobu li mu ci wax dafa riche trop. voilà jigéen bu ne loolu ngay ñaan nag ñu woyal la daal leen koor te yaakaar naa ne man ajaratu daara mbay woyal na ma ko waa diggante jëkkër ak jabar diggante mag ak rek su ma neexee sax ni diggante papa ak doom ndax fi mu ne nii amatuma papa sama papa gaañu na lépp moom moo ma fa féete macha allah gannaaw yàlla yaa xam. voilà mën na may jeexee ba léegi yaa ngi toog ba léegi lu nit ñi di naan fa yow mosoo kii te loolu yomb. waaw loolu la dañ naan doomu jigéen jàngaar ne yaayam mooy sëriñam. te man waaw sama yaay sama papa rek la xam sëyal ko ba ñu jiit leen te kon nag noonu rek la ñaan yàlla sëyal waaw sëyal mbay jee rek ñoom waaw. waaw yaa ñu ngi kontaan naa. Eh, Thiané ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. Ah, sa présence fii tey la moo ko waral. ah waaw lu normal la. ndax Aïda dafa nekk sama sister. avant mu nekk sama chéri yaay delluwaat nekk sama jabaru papa xam nga kon kooku dafa bëri cër yoo xamante ne dama ko am ci moom. c'est allah parce que nee nañ doomu doomu ñay moom kenn du ko ñaanal rëy macha allah te. Aïda mu nag moom dafa def effet dafa def effet parce que. kuy jeeg bu baax rek gis nga ci sa bopp waaw gis nga dafa def buzz ci TikTok beeg si si snap bi ak si lépp ah si réseaux sociaux yi maanaam. Euh, ñu ngi naan daal ni koor moo tas kër yi mu ngi tas kër yi. voilà parce que tey ji ñi nga xamante ne ñi ngi sëy xam na ñu ngi def lu baax ci kër yi. daal Linkoor deful lu dul neex leen waaw ni muy déranger nag mooy ñi nga xam ne defuñu la nga xam ne moo leen war seen sëyukaay mais leçon la leçon la pour ñi nga xamante ne teguñu ko ci yoon dinañ dinañ mën a jubal nag daal di tegee fii si yoon. <laughs> Euh, mën a wax sa euh, ay def vraiment ndaanaan la ndaanaan la euh, mën na li muy def di mu nekk tamit nit bu baax. nekk nit bu xam teraanga nekk nit bu sympathique vraiment bàyyilul sama yaay dara teraangam benn manqué wu vraiment nit bu baax la daal. ñu lay jaajëfal jërëjëf.